daje bi li ko waral mooy dañu amoon lu ñu naqari euh, ñu ñëw fii pour jëmmal ko niñ ko mën a jëmmale mooy dakkal lekk ak naan sax bu ci mënee bokk ndax am nañ lu ñu naqari trop li ñu naqari mooy nekk ci benn boîte boo xamante ni société nationale la du du sax société privée mais société nationale la ñu ñu nekk ay nationalité sénégalais juddoo ci réew mi yaroo fi jànge fi war a liggéey ci boîte boobu noonu liggéey bu mucc ayib ñu jàpp ñu def ñu ay prestataire Euh, euh, euh, tant d'années boobu ba léegi ñi ngi régulariser ay ñoo xamante ni mosuñu teg seen tànk ci biir Sénélec chaque jour nga gis ku xamante dañ koy jël jox ko matricule mu romb la dal dem dal li nga di ko former loolu lañ ne mënatuñ ko dund loolu lañ bëgg mu dakk sinon bu dakkul ñun suñu xiifal bii duñ ko dakkal ba keroog ñuy régulariser 499 prestataires yi. ah ki gën a tuutal li mu fi def def na fi cinq ans ki nga xamante ni moom moo gën a bëri lu mu fi def. def na fi trente ans vingt ans vingt cinq ans loolu dafa yàgg te su fekkonte ne ñoom mënuñu ñu régulariser kon ñun ñu taxaw di ko réclamer mais li tax ñoom ñu war ñoo mën a régulariser dañoo gis ñuy régulariser ñoo xamante ni amul dara lu ñu apporter Sénélec te ñun lu mu dee dee apporter nañu Sénélec ay at yu baree bare baree baree bare ñuy tuur suñu ñaq si biir xooluñu lu ñu neex xooluñu lu ñu naqari xooluñu paiement bu tardé xoolu ñu bu bu bu sooxe kon donc ñoom balaa ñoo régulariser kenn ah parce que kumba am nday ak kumba amul nday la ñun ñooy kumba amul nday yi kumba am nday yi ñu ngi leen di jox matricule bu gaaw bu nooy nga tëdd sa kaw lal ñu woo la ne la ñëwal nga signé nga delli ñëw ñu defal visite ah ñun 499 lan juróom ñetti fukk ak juróom ñeent téeméeri manqué benn au niveau national budget Sénélec attan na lu ëpp 500 personnes te ñun motuñu 500. am nay temps sax ñu dégg ñuy wax benn communication ñun 8000 lan président de la république moo toog wax ko ci fête de travail mu ne ñun 8000 lañ ñun motuñu mil communication boobu noonu kooku suyoo boo ñu dakkal ko ñun 499 lañu. beneen bi ci des mooy dégg naa fi sànq ko wax ne ndax du woyefal yi sax moom moo tax xëy na Sénélec ñi mettul recruter du woyefal yi parce que Sénélec commercial musul am assurance assurance mi ngi soog a dugg ci biir Sénélec assurance su demee dugg ci biir ci biir Sénélec ci ci commercial. kon ngeen xam ne kon liggéey bi yokku na liggéey bi su yokkoo personnel bi dafa war a mais personnel bi buñ koy yokk ñoom ña ngi koy yokkee feneen fi nga xamante ni moo la neex te pourtant ñu ngi ñuy gis chaque jour ñuy xëy te Senelec du marché Thiaroye du bitiku mbagg société national la boo xamee ñun ñëpp ñoo ko bokk suñu xëyee di fa xëy ñu duñu gis ñu duñ jox courrier ñuy def contrat di leen ko delloo loolu du informel mënul nekk informel waaw xaw ma nag ko mën a tuddee alerte président de la république ah Sall moom lay lancé appel bi di ko wax ne ñii ci ginaaw ñëpp muy gis fii ni ay coordinateurs yu jege ay DRCO euh, euh, ak euh, Dakar 1 Dakar de DRS Sud xam nga partout ci région de Sénégal ñi ngi fii tey ji seen coordinateurs yi ñi ngi fii nii 499 yi soo gisee ñëwuñu fii nii ñoom ñi ngi liggéey parce que tamit système boobu la ñuy doxee ñii dañuy nekk di liggéey ñii nekk fii di xeex ba keroog ñu am génne cause bu ko defee ñun ñëpp ñu dal di bokk li nga xamante ni moom lañ doon xeex lii condition yi mënatuñ ci dem te jaral nañu lu nekk nag. bu affaire bi saafarawul duñu dakkal lii ñu nekk mooy xiifal bi waaw te li lépp nag Macky Sall mën na ko jeexal a vrai dire mën na tax mën ko jeexal mooy liñ koy laaj nekkul lu amul nekkul lu mu mënul liñ koy laaj mi ngi fi mën na ko am na ko ñi ngi koy jox ñi ngi nii taxaw te capable nañu pour exercer loolu te loolu suñu alal la te ñun yay nañ ci kenn gënuñu cee nan nu jox suñuy matricule wala ñun jaral nañu daal loo loo yaakaar rek jaral nañu jaral nañu sax di marche fii ba pale fii ba pale su fekkee parce que fi ne ne ma wax la nag bu njëkk dañ doon dox ak suñu xel actuellement doxatuñu ak suñu xel fi ne ne antuñu ak suñu sago parce que affaire bi dafa egg foo xamante ni tout texte est nuisible dafa dafa commencé ëpp parce que bu ñu demee ba yabal sax ay seeni communicateur ñuy dem di toog si télévision di wax ne ñun du euh, euh, duñu duñu ay ay ay amuñu liaison juridique ak Sénélec liaison juridique xanaa du liaison juridique xanaa du moom mooy contrat du travail xanaa du mooy bulletin de salaire boo mus a jox benn agent ñun am nañ ay bulletins yu ñu mus a jox xanaa du lettre lettre ordre de mission bu ñu signé par les par par les chefs de service caché ko xanaa du loolu mooy euh, kii liaison juridique bu dee loolu la mi ngi ak ñun am nañ ko buntu boobu tëj nañ ko te dootul ubbeeku feneen kay la ñu mën a jaar te bu dee apte apte nañu mën nañoo xëcc câble mën nañoo yëg ci poto mën nañoo manœuvrer poste ñun daal xam nga lu ñu soxlawul toog ci kees di encaisser xaalis lañu soxlawul mais lépp luy xamante ni liggéeyu Senelec la buñ ñu ko joxee dañ koy liggéey bu ñu nelawee sax boo ñu yeeyee ñu liggéey ko mais leen la ñuy jëli koo xamante ni saa balaa ngay jël koo xamante da nga koy jàngal feey ku juddoo ci ndox yaroo ci ndox sànni ko ci biir ndox mi mu feey ñun loolu lañ xam mais lii nii moom jaral nañu lu nekk na jaral nañu marché ba pale te nag Macky Sall rek la ñuy joxoñ baaraam lu ñu dal rek moom moo ñu ko teg parce que lii mën na ko régler waaw mu ne. waaw waaw ñi ngi ci doon dox ay jéego parce que dox ay jéego munul passé nga fëgg bunt directeur général mu toog ak yow jox la promesse promesse yooyu non respecté du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeenti yoon li gën a ña li nga xamante ni sax mooy ñii amuñu ci ñun benn considération 490 ans nga woo nga ne ko dama lay jox ñetti nit xanaa da wax ne pour ñu rayante ñun suñu biir ñun buñ ñu joxoon sax. Euh, euh, loo xamante ni ñun ñëpp mënuñu am protocole boo xamante ni banque de donné lay doon ñu sécuriser ko dal li wax na yéen jël nañ ci yéen cinquante sax wala jël nañ ci yéen soixante année bii dinañ jël lii bu ñu deful loolu ñun leneen lu ñu def bëgguñu ko parce que sunu ngor la ñuy doxee te lu kenn lu lu kenn am ñu des ñàkk ko soxlawuñ ko lu ñu amandoo ñun ñëpp ñun dugg ñun ñëpp wala taxa taxaw bi ñun ñëpp. même waaw non xam nga nag lan moo ciy malheur ñoom chaque jour ñoom ñi ngi ñun ñi ngi ci lëndëm chaque jour ñoom ñooy xam xam nga li gën a neex ci négociation su doon ñoom da ngay jékki sax am ku ñëw ne la waaw ñi ngi ci même bu dee ay nax la ñi ngi ci mais doo dégg sax koo xamante ni dina la wax ne la éco bi Senelec mi ngi ci yéen wala mi ngi nangam nangam loolu moo indi tey jii ñu egg étape bi ñu egg nii te lu mu gën a yàgg nag xiif moom xam nga xiif dafa ànd ak naqar deret lu mu gën lu ñu gën a xiif gën a naqari deret di gën a violent nag parce que egg nañ foofu noonu waaw.